ci bu am bu nekk bu ne am lu mu jur ci ginnaaw léegi léeg conséquence yi nekk loo xam ne mën koo dékku day métti ba yegg ci lool li nu mel jot naa gàllu ci ndodd ki nga xam ne moo di ab Abdoulaye Diouf Sarr loolee moo ko yóbbee moo ko laaki une porte dal di génn ndax Macky Sall dàq na ko dala tabbu ci ginnaawam ki nga xamante ni moo di docteur Marie Khemesse moom mi nekkoon directeur directrice de la santé la ñu mujjee dénk ngir mu nekk ministère de la santé fu mu toll nii tembe Abdoulaye Diouf saar ak li jot wàcc ci ginnaawam yenn ci càkkuti fi nga xam ne tam ay sénégalais jot nañ ko am Macky Sall wuyu na boobu la mbir ndax dàq na ko ci poste ministre bi mu nekkoon la ko sabab nag da cee bokk la nga xamante nii moo xew ci diwaanu Tiwaawoon fukki liir ak benn ñàkk seen bakkan ci anam yoo xam ne tragique la bokk ci ginnaaw requête boo xam ne yàgg na lool ñu koy nemmeeku askanu Tiwaawoon ba ci xali général de Tidiane doon ko sàkku ci moom moo di rekk gën a delloowaat ak niveau boo xamante ni bu mucc ayib la l'hôpital ba nga xam ne moo nekkee ci Tivaouane mu dal ko mérité mu mel ni ab tànqam lu daa am ci mbir mi ni mel ba mu jur jéye bile loolee moo yóbbee Abdoulaye Diouf Sarr ñàkk na postam ni ki tey jile mën yi day amaloon na tànk yu am solo ginnaaw ba mu yëgee mbir mi ci diwaanu Genève fa la dakkee participation ba mu doon amal ngir li nga xam ne moo di ministère de la santé waaye mbir mi doyul ndax Macky Sall dafa jugé mbir moomule insuffisant waaye tam bokk ci jéego yoo xam ne dafa yéex lool. mu mel ni Sénégal ginnaaw càkkutéef bi ñu doon am ci wàllum paj mi ndax daana mën a nekk loo xam ne luy antu la wala sax nag xool dal ci dal wala xel di ci dal lu yëpp laaj bu samp la te daanañ ci mën a xam lu leer ndax ki ñu ko dénk moom tamit directrice de la santé la waaye nekk nit koo xam ne technicien la. waye tam am xam-xam ci walu wi ni mel motax sax ci makan google la nekkon ki nekkon ci ginaaw njiit moy mujjé jité njiit bu ko dul donati mari Xemes lay wuyoo Abdoulaye Diouf Sarr mooy aale bëgg top kat ma ngi bari lool mom momulé waye tam plateau médical bu Sénégal soxla benen taxawalin ak benen doxalin buñ ci wara mëna abbu ndax daana antum det laaj bu sample xaar fu mujjé ki gëtam ci paluk docteur mari Xemes